kenn ku ne ci nun nag. kenn ku ne ci nun nag. feeg bis ba feeg bis ba. képp bépp bépp taalibe. bépp taalibe. ak képp ku bëgg Serigne Touba. ak képp ku bëgg Serigne Touba. Eh, na nga na nga na nga am pasteefu. na nga am pasteefu. jàng ab kaamil. jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant bi. cant gi ñuy war a sant Serigne Touba. cant gi ñuy war a sant Serigne Touba. ak di ko ko santale. ak di ko ko santale. kenn mënoo ko. ku yàlla dogal mënoo ko. am na ñu ko mën ci sa am na ko man ci sa wet. nga nga seral xol ku la ko jàngal. nga seral xol ku la ko jàngal. ñu góorgóorlu bu baax ñu góorgóorlu bu baax. alhamdulilah rabbil alamin kon nag gannaaw bis bi mag bii di ñëw. benn bis bu ko kawe. benn bis bu ko kawe. te bisu cant rek la. ndax bisu cant rek la. Ah, nan ko waajal bu baax ko waajal bu baax a baax a baax a baax. lenn luñ mën a dolli ci cant gi nag. luñ mën a dolli ci cant gi nag. ci xeeti yu baax yëpp. ci xeeti yu baax yëpp. luñ ca mën rek nañ ko def.